ba tey dégguñu combat guy gi promoteur yi ñu ngi lay contact grand contre bi ci lañ nekk yàggatul grand contre maa ngi dégg ñaan Gris Bordeaux maa ngi dégg ñaan yi koo ci Eumeu laa gën a soxla ci grand contre bi Ama Baldé am na jëm Boy Niang am jëm te dafa naa Eumeu amul beneen espoir boo ko jox bu man kon dafa naa loolu mooy grand contre bi ñu suñu liggéey suñu entraînement dans quelques instants ñu dem états a am ndam bu soobee yàlla guy gi Eumeu Sène diis na man du ay sax parce que man nu ma neex nu ma bëgg a neex toll lu ma bëgg a neex def ci nit doomu aadama bi rek mais kenn ko xam guy gi booy bëreeg moom boo tëddee doo nelaw mais léegi bi ma ñëwee toppandoo gars yi jël yenn poids topp lekk neex yi soxna si repas ak yooyu yaa ma gën a xam. toll ñu promoteurs yi ñu ngi lay contacter sa diggante bu baax bu baax sax bu baax dañoo jubagul mais bu baax dina baax bu soobee yàlla. jàpp nañ ni guy gi ren dina tawel xataa. bu neexee suñu borom incha <laughs> ah, dañ laa bëgg seet si. maa ngi kër bu ngeen ñëwee bu ngeen sonné rek man bu ma teyul ma kenn sama porte maa ngi ok jeex na ñoo fa di nuyu tey ñu ñëw ci fi nga xamante ne mooy daju Pape Dia di kenn ci magu Bombardier bokk ci làmb ñu fekk fi Reug ñu ngi lay nuyu. waaw maa lay fay ñu wax auzu billaahi mina shaytaani grand frère la woon.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 jërëjëf jërëjëf eh. jërë ngeen jëf mbokki Wassare Lamb Wassare TV ñoo ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo di leen bëgg bu baax a baax di leen wax ne tey yéen a ngi fii ci Wassare Lamb yéen fii ci Wassare Lamb ñu waxtaane la nga xamante ni dafa bokk ci làmb ku ne xam ne saison bi na waaye daanaka daa mel ni saison bi tijji na ndax boobaak léegi saison bi tëj na gis nañu ay làmb yu bari xamante ni taxaw na fi ku ci mel ni Ama Baldé Modou ku ci mel ni Gris Bordeaux Balla ku ci mel ni Reug ah ak Gouye Gui ñu war waxtaan ak yéen fii nga xamante ni mooy plage bi ñu ñëw di Parcelles Assainies fa yéene fekk sportif yi nga xamante ne dañuy sport laaj leen ci combat yi taxaw naka lañ ko gisee ak combat yi kan lañ jox favori ak làmb ji naka lay demee sëñ Bas mën nga maa topp ñu dem xool sportif yi. noo gisee combat bi nga xamante fan yëpp ñoo ngi koy dox muy diggante guy gi ak Reug boobu làmb noo ko gisee. waaw boobu moom maa ngay koy gis réseaux sociaux yi ah, di gis guy gi di si wax. mais coow li ci am lépp. waaw coow li si am yëpp guy gi moom. franchement mbër bu kii la quoi mbër bu mbër bu am taxawaay la mbër bu am taxawaay la mbër boo xam ne yomb la bërëm du yomb quoi pour nga ñëw daan ko mais Reug Reug tamit dafa prouver benn jeunesse la te dafa ànd ak tamit genre fougue de jeunesse quoi maanaam ñooñu noonu souvent dañuy indi betteel quoi ku si mel ni Reug Reug waaw ñooñu dañuy indi betteel quoi parce que waaw parce que li ñuy àndal la quoi waaw mais franchement guy gi moom du doon combat bu yomb quoi. waaw mais Reug Reug am na chance am aussi ah pour daan ko waaw il toutes ses chances moom. kontaan naat ci yow. waaw amul problème ñu guy gi ak Reug Reug. eh guy gi. guy daan mooy daan. <laughs> kontaan maa ngi gën a kontaan merci. diggante ak guy gi nag. Reug Reug ak guy gi. xaw ma ci guy gi. waaw. moom moo jox daal. moom laa jox favori waaw. maa la gën a kontaan gars yi. jërëjëf jàpp te. guy gi noo gisee boobu combat. non combat boobu moom ku nekk mën a daan sa morom quoi ñaar yooyu. Hmm. waaw loolu laa gis. kon daal dañ ci taxaw cinquante cinquante. waaw. rëg-rëg ak guy gi noo ko gisee. da kay daan moo dàq bëri guy gi. guy gi ah. waaw guy gi du bëri. waaw li nga wax. waaye rëg-rëg ak dàq bëri fuuf. foo loolu. waay loolu dama kaa xam rek. Ah. waaw rëg-rëg jàpp laa bu ko jàppee day daan guy gi. waaw da kay daan moom. guy gi mujjee daan si tëdd. waaw da rëg-rëg da kay daan. Ah. rëg-rëg xoolal ñu fi daan rek. Euh. ay jàmbaar la fi daan de. diggante Gris Bordeaux kii kon euh, guy gi ak Reug noo gisee boobu combat tamit. boobu nag maay wax guy gi mu jël Reug Reug ndax daa déggoon naa dafa daw naka jël daan ko waaw moom man Reug Reug moo ko man moo ko ëpp doole naka jàpp daan ko mu jeex comme. moo ko ëpp doole gis nga ni mu toll. ah waaw nu mu toll yëpp yooyu yëpp garaawul mais bëri xel la du doole du kii du doole. mais doole ci la bokk tamit. waaw doole ci la bokk tamit dëgg la mais kenn werante wu ko mais kii moo ko xel moo ko dàq bëre ka moo dàq guy gi moo ko dàq bëre. guy nga dàq bëre. waaw. Hmm. kon yow daal guy gi nga ko jox. guy gi laa ko na jël rek rek daan ko mu kas loolu kese amul leneen. ma si ñu xool leneen. waaw. kontaan naa kay waaw kontaan guy gi ak Reug noo gisee combat boobu. guy gi mooy gi dina daan Reug xam nga li ngay wax. waaw xam naa ko kay. Ah. waaw. ni mooy guy gi ak noo gisee boobu combat. dëgg yàlla. combat boobu moom bëgguma see débat man de guy gi mooy sama mbër. Hmm. guy gi mooy sama mbër guy gi moom bëgguma ñu daan ko bëgg naa mu daan trop. Hmm. billaahi. noo gisee combat Gris Bordeaux kii kon guy gi ak rëg boobu combat. Euh, guy gi ak ak rëg-rëg mais guy gi nag ay faral nag. moom moom sama waay la quoi. guy gi guy gi. guy gi ak rëg noo gisee boobu komba eh, combat boobu noonu tamit guy gi day daan. guy gi day daan waaw. gis nga li mu fi def lépp. non xel mag la koy jaar rek booy bu kesaan kenn daanagoo moom mun na ko daan sax seeka hmm. waaw. kontaan naa ci yow. waaw maa ngi lay remercier di la gërëm. jaajëf c'est kii di Reug ak guy gi coow li bari na combat bi day taxaw combat bi taxaw ba léegi combat bi taxaw noo gisee boobu combat. combat boobu daw combat bi wax ji jeex si guy gi la mais rek moom pare na. sa buñ bëre sa buñ bëre woon xam nga ñu gis lu leer nañ. Hmm. waaw. Gouye Gui non daw combat bi. waaw kon yow daal fi mu toll nii Reug Reug nga jox favori. non si si wu leer mooy mooy favori. waaw diggante Gris Bordeaux ak kii kon euh, guy gi ak Reug Reug noo gisee jooju làmb. guy gi de combat yi nga ko jot jox yëpp. combat gañ yëpp da koo gañe de. Hmm. guy gi champion la daan daa daan Mbaye Diouf daan ama neex daan ama balde daan basoka daan zos bëreeg tafaatim bëre bu rëy Reug Reug daanagul champion Elton la fi daan ak Jordan daanagu fi champion. te waaw daana daanagu fi champion te guy gi bu xefe eh, Reug bu xefee. Mhm. guy gi dóor ku mu daanu. yaakaar naa loolu combat du yomb de. du yomb kañ ndax guy gi nee na ko bu tegal sa cachet ma teg sama cachet ni jàkkaarloo. Hmm. suul tànk yi xeex bu ñu xeexee neen xeex cinq minutes yu saf sap ñu xool kuy dóor sa morom mu daanu. yow boo doon jox favori kan nga jox favori ci combat man de guy gi laa jox favori. wax dëgg yàlla waaw. dégg naa ci yow. waaw jaajëf jaajëf. guy gi ak Reug Reug Reug Reug xaw ma ko. xaw ma xale boo xamante ne toj na lutte simple bi. Reug Reug. moo mujjee daan rek Gris Bordeaux bi. ah. Mhm. bon chance à <laughs> parce que xaw ma Reug Reug de. Ah ah. non kontaan naa ci yow xam nga loolu. ah merci. Ah. maa ngi gën a kontaan. waaw kan leen ko ci wasaare lamb rek. wasaare lamb lamb. waaw dinaa leen suivre YouTube incha allah. ok merci beaucoup. ok merci à lamba ba may door teñ ne woon du sore teñ ne woon du sore waaye tey jile waa saare lamba ji naan waa wasaare nan wasaare wasaje nan wasaare wasaare nan wasaare wambeje kosombek ji ji kosombek hey yo kosombek hey hey kosombek Fall Paradise. Kosta Mbek. hey hey Kosta Mbek. hey yow. Kosta Mbek. hey hey Kosta Mbek. benn télé. télé askan wey di dox ci làmb ji ñoo ngi ci coronavirus. de leen takk yi di raxasu di sangu ba sensibilisation si wasaare tasaare kële Moulay Mass yaa ñu gën a xam fii ci cité douane. waaw Sarsarale. yee Sarsarale di woo jeunes yi si time is money. di remercier waa wasaare gars nice di def affaire bu nice. comprendre ma la ñoo fekk ñu si taalibe def lu nice. fépp foo leen dem nag yàlla ngeen am jaamu yàlla ngeen am tawféex li ngeen di liggéey nag yàlla ngeen ci am ok maam Serap Fall bàyyi leen fépp yéen waaw am leen jàmm 111 ans sans ordonnance leen dund fépp ak tawféex. Serap Fall Paradise dundu leen yaa mi bàyyi dégg ngeen